bokk yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yónnenteem ba seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp di balu xaq ñépp di ñaan yàlla yàlla na nu yàlla boole jëggal tomb bi ñuy fàttalante tey day aju rekk ci xew-xew bi nga xam ne moo xew ci jamono ñun ñépp gis nañu ne ay fan a ngi nii foo taxaw am ñu la romb fuñ jëm dagaan baatu askan dagaan nag ci wolof mooy kuy wut soxna ñu ne ko demal seeti sa doomi bàjjan diw walla sa doomi nijaay diw walla sa doomi baay diw buy dem waajtaay wa muy waaj waajtaayu kuy wuti lay doon ndax noonu lay mel ba faw bu ca jotee am déet yàgg moo koy maye bu yàggee tuuti ñu xam waaye daanaka dagaan nga jàll na am yor moo ci des fii ba ba muy jàll ci jàmm yàlla na yàlla wis ci ndox mu sedd guy ba mu doon lu ñuy fàttaliku te mu doon fàttaliku bu neex a nettali ña ca seen mur nekkit yàlla na leen jig tañ xam lañ leen yan lum doon ndax tànn gi ñuy tànn ñiy toogal gox bu nekk ca pénc ma lu xel mën a nangu la waaye dafa mel ni tànnin wi ñu tànn ni ñu koy tànne njuumte am na ci ba noppi njuumte li mooy bañ tàmbalee tànn ba fii mu ne juróom fukki at ak nangam day mel ne gox bu ci nekk dañu leen di tànnal ña fay nekk ne ñii laa bëgg mu nekkal leen fa yéen bu dee ci pénc ma day dañuy ñëw ci kër yi kenn ku nekk ñu ne la yabalal ndaw buñ dee tànn ci pénc ma moom am lu ñu fa war a waxtaane wala lu ñu fa war a séddale dañuy dugg ci kër gu nekk ñu ne la tànnal koy yabal ca pénc ma bu dee lu ñuy joxe ñu jox ko ko bu dee lu ñuy wax ba waree wax mu wax loolu nag weesu na waaye mu des ñi ñuy tànn bokk yi foofee ñuy yóbbu ña ñuy tànn yan bu diisa nga fa doonte jamono bi ñu koy dagaan dana ànd ak ay xumb xumb yoo xam ne xel du dem ci lenn lu dul jot ca rek ndax dana ànd ki tàccu bu dee yenn dëkk yi dana ànd akum tëgg bu anutoog moom it bu demee ba ca ba fañ koy defee bala ñu faa jógee danañ ko fa tëgg wala ñu tàcc ko loolu lépp nag bu jàllee bañ ne yow lañ tànn ci gëstu nee nañ yaar lañ fay nekkee ba yat yaar ya ba ca jëkk mooy kum neex ca ñañ tànn mën naa bind penc mi ne ko dama bëgg ñu waxtaan ci lii ba def ko muy lu war a àtte réew mi proposition walla kilifa réew mi yónnee fa loo xam ne daa bëgg ñoom ñu joxe ci seen kàddu ba mu nekk lu ñuy àtte réew mi ñetteel ba mooy ñoom ñu nekk fa di xool ba xam li réew miy def baax na walla déet su baaxee ñu ne leen waw góor su jaarut na mu war a mel ñu ne leen taxaw leen jaarle leen ko nii yooyu nag lenn lu ci woyof amut lu diis la ndax su fekkee yoon yi jullit yi war a doxe ci Sénégal ña koy tëralal jullit yi wuutu fay wuutu yàlla ci atem yi ci seen loxo la nekk li nekk ci seen loxo lu diis la lu tàng jër ndax bokk yi bu ñu fàtte ne penc moomee fa lañ daje woon bis ne nañ dindi ku rey ñu rey ko te loolu alxuraan a ko wax du dis la fa lañ fa la ñuy daje it di wax lu nekk gannaaw nag ñoom ñoo wuutu yàlla ci àtteem yi alxuraan doyatu ci déglootuñ ko ñoom lañ war a déglu yenu nañ lu diis yàlla na leen yàlla téeñ te yanule leen loola téen téeñ ba na muy demee mooy ku fa nekk boo dee ab jullit nga xam ne loo wax fii da nga ko waxaat bu ëllëgee ci mbooloo mu gën a xumb foofee te loolu du samay wax waxi tabaraka wa taala laqad ahlakna ashyaakum mooy yàlla moo fi jële ña daan def lu mel nii ngeen daan def fa hal min muddakir waaye rik waaye kaay leen fàttaliku ba xam ñooña lu leen daloon bala mu leen a dal yéen wa kullu shay'in faaluhu fi zubur luñ fi mas a def moo xam muy proposition de loi boo xam ne ñoo ko tànn ñoom wala dañ leen ko yët muy projet de loi bu dee luy jariñ jullit yi di leen yombalal seen dund di tax ñu gën a nekk ci jàmm ne ci jàmm nag sëñ bu mag bi nee na woon mooy ne ci ndigali suñu borom yi bàyyi ay tereem lépp luy dox jëm foofa ku ca fés yàlla nee na mi ngi ko bind denc fes ga nag mën naa am nga bokk ci ñi ko dëgëral wala nga bokk ci ña ko weddi wa kullu shay'in faaluhu ñoom ñoo jëkk ña fi zubur mi ngi ci ay téere ñu bind fi mu ne nii wa kullu sagirin wa kabirin mustatar lu nit ñi yëg ak lu ñu yëgut su ngeen ko wéyalee mustatar yàlla ma ngi ko bind mu ne wét wétee la te dutu ko far mukk lu dul tuub bu demee bu demee wut na mbar a deme kon ñi wuutu yàlla ci àtte doomu aadama yi di leen tëralal yoon yañ leen di àtte ak yay àtte seen digganteeg seenu njaboot seen digganteeg seeni dëkkandoo ba ci seen diggante ak yàlla sax ndax léeg-léeg ñu daganal loo xam yàlla da ko da ko araamal loolu lépp lu mat a bàyyi xel la ca ku fay dem te tur wi ni mu tudd muy naib naib bu ñu ko misaalee ci dàkka moom la yenn dëkk yi di wax naayim naan mooy naayimu imaam bi naayim nag amut ci dàkka amut ci jumaa naim amul ci jàkka amul ci jumaa naib mooy am ci jàkka ak jumaa naib mooy koo xam ne bala ñoo taxawal julli gi lañu koy tànn ñu sa rëkk ci imaam su demee ba munta sa dem kuñ ci xëcc mu mën a dem loolu la muy tekki mooy fa fa mu taxawoon lay taxaw di fa wax lam fa doon wax di def lam doon def ba ba muy sëlmal seen julli maase baax waaye ay nuwaab lañ fa soxla waaye soxla wuñu fa ay nuwaam mooy ay nelawkat ay tàccukat loolu moom ko fa na ma nekk bayee boo lañ lay jox nga bañ koo jël ndax boo ko lekkee du rees luy tax du rees mooy ña nga ne woon maay dem nekkal leen fa su ngeen amul ndox ma wax ko fa jéebaane ko fa reeteet ko fa reeteet lu nit néew néew doole man ko picc yu sew yi nga nga gis ñuy naaw mënuñoo rey jaan ndax jaan ñoom lay wër di leen fiir di leen jàpp waaye suñu ko séenee ci àll bi muy balaw balaw yi dañuy dem woyi seen bokk yi ñëpp àndandoo ñu tiim ko mel ni layu ci àll bi ku xam àll boo ko séenee xam ne fee jaana fa nekk wala lu ñu ragal a fa nekk nit wutali ko moom kon boog gannaaw dañ fa dem dafa jàmbati njàmbat yi ñun amuñu ndox muñ naan amuñu yoon wuñ jaar amuñuy làmp soo ko waxanteeg sa waa kër bañ na ay ca rikk boo demee bu fa nekk naa im nekk fa yaa xiir ku ne xoj xojoral ne jàkk dafay xew su sa waa dëkk soxlaa ba yónni la fa ne la soxla nañ fi nangam lu jàmp boo demee soo ci mënut dara yit nga reeteet ko fa waaye jàpp na yow soo reeteetee soo ne benn yoon dëkk ba amul ndox ñu ne wax nga dëgg de war na ko faa def nga dellu si war ne amuñu aw yoon ñu ne kii kat mi ngi tàmbalee sànni ay xeer di jàmbat nañu ko sakkal pexe sakkal ko pexe mooy sakkal ko pexe rek duutu nekk fa mu nekkoon kuy ragal lool nag jërut bu fa dem moom ndax boo fa demee ne càll ne xiim ña nga bàyyi ginnaaw di yaakaar seen yaakaar nar a tas lañ lay jox boo ko lekkee du xaaja rees dafa am ku suñ baaraam yi mësa yónni ci ak màggal gàmm ba mu demee ñu doon wax ñépp lañ doon wax mooy yoon wuñ jaar ay làmp yoon wuñ jaar ay làmp yoon wuñ jaar ay làmp ab goudron sëñ ba fa suñ baar yónni woon nag ne leen sëriñ bi nee na bu leen laajati am ndox bu leen laajati aw yoon bu leen laajati courant xanaa xamu leen ne bu ngeen laajee courant léegi tey seen ganaar yi jeex bu ganaar yi jeexee bëy ya topp ca xar ya topp ca nag ya topp ca ndax ñiy sàmm dëgg dañuy wax ne boo bëggee am bëy yu bari da ngay wut ay ganaar boole kook moom foo war a reye bëy rey ay ganaar su dee xar nga wuti bëy soo waree rey xar rey bëy su dee ay nag nga wut xar foo war a reye nag rey fa rey fa xar kooku ne leen courant bi ngeen di wax weer wu dee wala yaari weer yu nekk dañuy indil aw këyit xamut tereet taxaw na xamut joxe jiwu taxaw na këyit woowee xaalis nga cay fay xamul noor na xamul nawet na xamul wax set soo ko fëyut ñu daal di koy tàggaleeg yow fa saasa ñëw dagg ko nga nekkaat ci lëndam li ngeen di mujj def ci ab sénégalais ni mu bañee la mënoon dem mënatu ko dañoo couper seen courant am na ñoo xam ne jaral na leen lu nekk te courant dafa ñoo dab rek yeggu fi dara su boobaa day tàmbale jaay ci ganaar yi ndànk kenn du ko yëg muy fay courant ba ganaar yi jeex mu tàmbalee jaay ba bëy yi bëy yi jeex mu tàmbalee ci xar yi ba yàgg léeg-léeg mu jaay aw nag fajaale ci yeneen soxla seneen soxla taxawaat këyitu courant di la siwaat kër gi tàmbalee yànq di def ay jaal yu xóot ci wàllu koom-koom aw yoon it sëriñ bi ne bu leen ko laajee ndax dëkk dëkkaan yi nii mu mel par yaari kër par genn kër bu ñu bëggee fu nu yoon wajaare fii du si ko man sëriñ bi ne da leen laaj fu ngeen fajoo bu ngeen wéradee ak ndox mu ngeen naan ak daara ju ngeen di jàngale seeni doom moo xam daara yi lu mu mën di doom ndax yett yi ku am courant dana ko soxla ku amut courant soxla ko ku am yoon soxla ko ku amut yoon soxla ko te aw yoon ku am soxla danga ko fa tax nekk ñun ñii fi ñëw bañ fii ñëw yitte moo ñu fi indi bu fi bu fi yoon bu yoon wi nekkoon ñaari yoon dem ak dikkit te amoo fi soxla du la amal jariñ waaye kooka nee na ba gaa yi duggee ci biir kilifa ga fa nekkoon dana ko sëriñ bi sa bataaxal jàll na waaye nag yii ngeen di wax su ngeen ko yàggee wax dootuñ am luñ dalale nit ñi dalal seeni xel dalal xel yi mooy aw yoon lañ bëgg léegi tey mu sotti courant lañ bëgg ki yor courant baa ngi nii toog mi ngi koy dégg mi ngi koy dégg ndax dana ko def dana ko def du benn kon ñañ fay yónni jàmbat yi moo leen fa war rikk tàcc weesu na kañ nit ki weesu na ñi koy kañ dañ koy yeb rek waaye moom la mu fay nekk su jeexee ba mu ñëwaat bëggaat ko ca lay bàkkoo walla mu ne xiim wax nañ ni jóge ca bëréewukaay ba di bàkku moo gën jëm ca di bàkku moo tax gannaaw ñoo fa wuutu suñu borom subhanahu wa taala moom yàlla àtteeloo guñ ko ci réew mi ñoom ñooy tëral yoon yi yi ñuy àtte nit ñi moo xam mu neex leen wala mu naqari leen nañ dafa bu yóbbal ne des na tàcc nit ba mu yàgg ñu wàcce ko fekk mi ngi dund fu mu jaaroon ñu di ko tàcc bu fa jaaree day nuyoo nuyoo ñu ne di way nuyoo ñu ne ah naam nangam loolu mooy jàmm ji wala ñu tëral ko ci aw dénk ñépp wër ko ñii di wax ci moom loo xam ne dëgg la woon ñenn ñi wax lu rafet rek soo waxee ñu ne yàlla nee na xuulu linnaasi xusna xanaa day fekk ñu def ko day fekk ñu def lu baax moo tax tëraay boobu ku ko dul fàttaliku lu la neex mën nga ko def waaye lu jege la lu jege jege jege jege koo xam ne danga faa war a nekk ngir nit ñi dëgg-dëgg boo fay dem ndax yow yaa gañe kooku ay ronkoñ moo ko war a gunge moom ci boppam daa war a simboo ay ronkoñam xalaat ndax liñ ma def loo danaa ko mën am rek ña ko fa yabal te gën koo jege xam le xam ko mu xam leen ñoom ñëpp ñu war dañoo war rum seen ronkoñ mbaa liñ koy def loo dana ko mën yàlla na ko yàlla may ndam waaye dañ koy ree def ko ak feet ne ko lii xamoon nañ ko ndax sa waajur moom xamoon nañ ne faw rek lii dana am lan ci lan bu ko defee mu ne ah ñaan leen rek daal di ree fas lam fas moom yàlla nay lu baax rek moo tax yàlla nee na woon ci alxuraan nit ñi ñoo ko fi nekkal fa ñuy tànn aw nit fa nit ñay tànn nit ñu leen fay nekkal nag ñooñu day mel ne ñoo fa nekkal yàlla moom ndax ñoo yor dogal moo tax ka bindoon yóbbu fa ne nañ dindi ku rey ñu rey ko bu fekkee mi ngi dund yàlla na ko yàlla wàññi ba mu tuub wala moo faatu bu fekkee faatu na yàlla na ko yàlla jéggal waaye yàlla bu bindee nga far mu rëddaat nga far ñetteel ba buy rëdd dalay far ba noppi tëral la rëdd ci sa kaw te dootoo jóg nekkal fa nit ñi te bañ faa nekkal ma sàmba wala ma demba ma sàmba ma demba daa am fu mu tàmbalee am fu muy yem te nit ñi yàlla lañ fa nekkal ñoom te bokk yi ñaanu ku mer yàlla du ko delloo ñaanu ku néew doole ñu jóge ci kawam yéeg jàll ñaan googu yàlla du ko delloo ànd ak loolu lépp nag ñi ci seen muur nekk ñoom ñépp yàlla na leen yàlla dimbali ba bu ñu fay jóge ëllëg mën a yëkkati seen loxo ca kaw ñépp xam ne nekk nañ fa lañ fa waroon a nekke ñoom itam ñu xam ne nekk nañ fa lañ fa waroon a nekke ña leen tànnoon it xam ne lañ fa waroon a nekke nekke nañ ko su boobaa lañ fay jële day lew doom te kuñ ca joxit doo fatantu door ko lekk waaye nag yàlla bu ñu ci bëgg astuur rek dugal ku ci bëgg astuur dugal moom lal lal na ay war ba noppi lal nay war ba noppi ndax la ko tax a jóg xam na ko da ko waxagut nit ñi da ko fas yéene jëf ñoo ñëpp yal na leen yàlla wàññi suñ bu mag bi nag yaari bayit yi ngi nii yoo xam ne fu waay mën a nekk ak lu mu fa mën a liggéeyee su ko yóbbuloo du fa def lu dul la mu fa war a def yaari bayit yooyu seen maanaa mooy bismillah wa ma tawfiqiya illa billah tawakkaltu ala allah lu may def yàlla laay jiital yàlla ku ko jiital fa ngay jëm mu gatandu la wa ma tawfiqiya illa billah li ma war a am ëllëg lépp ci loxo yàlla laa ko bàyyi tawakkaltu ala allah wéeru naa ci yàlla yaari bayit ya mooy yi ma doon jàng léegi daf ne ba mu ma wóoree ne koo mën a wéeru ëllëg day beppi ku daanu nga wutiwaat feneen ba mu leeree ci sama bopp mu wóor ma ne ki ñuy wéeru te bu wéeru wa wéeru wéeru wa wéeru ga wéeroo ci yow du ma sa bepp ku mukk mu yàlla ba ma ko xamee ci laa noppi dañ ba set wicc jéem a fexe dara lu may amal sama bopp bañ a yéem dara ci sama xam-xam wala sama kàttan wala sama pexe def nan fab sama mbir yépp wéer ko ci yàlla rek falamma badaali عجز كل من الورع وكون إلهي دافع الضر حيث جاء تبرأت من حولي ومن قوتي معا وفوضت أمري وفوضت أمري الدهر لله بالتجاع fépp fu waay di dem di fa liggéey su ko wóoree ne yàlla mooy joxe mooy xañe du fa yàq du fa yàqal kenn te kenn du ko mën a yàqal it ndax fi mu wéeru dafa dëgër kon yàlla nu yàlla dimbali bañ xam ne ñañuy yabal ñett a ngi nii baatub siyaasa lu yaatu la waaye ñetti tomb ñetti baat rek mën na koo tënk yoo xam ne des na ko leeral ca kanam soobee yàlla waxtaan yi ñëw ba ci jëkk mooy bu dee ab jullit la mu yëg ne am nañu topp ci ginnaawam lu mu def ñu bind ko te ëllëg dañ koy becc ñépp dégg ko ñaareel ba mooy lu ñu la tekki sa loxo ba nga ne mën naa ko xamal na ña la ko jox wàccoon nañ ak yow na nga fas yéene yanu ko ba wàcce ko ci jàmm ne gaayee la ko yoroon lii ngeen ma yanoon ñetteel ba it te moo ci mujj mooy mu wóor ko ne wóolu gum mën a dogu te bu ko waatee wàcc ne lu mu def ca loolee ñu ko wóoloo woon lu mu yàgg yàgg day taxaw ci kanam suñu borom subhanahu wa taala lu ñu fa indi ne nañ ko jàllale bul xool ka la tànnoon bul xool ña nga ko séqaloon ak xumb xumb ba waaye bàyyil xel rek ca màmmeel te yow dong yaa cay nekk loola mooy xam moo xam muy lu jëm ci àdduna tàmbalee àdduna yam ci wala lu nar a tàmbalee àdduna jëm àllaaxira ñaar yooyu rek moo fi nekk am na loo xam ne àdduna tàmbalee àdduna la yem waaye du tey des na ko régler ëllëg nag ndax lu tàmbalee fii àdduna rek àllaaxira la jëm ndax yéene ja ca waa ji yéene ak tànk yam ca doxoon dañ ko koy régler bu ëllëgee yawma yaqumul xisaab yawma yaqumul xisaab mat naa waaj bu baax am nañu ko faalewut waaye yàlla wax na ci ñoom wax na ak ñoom laa taxsabanna allaha gaafilan amma yacmalu zaalimuun innama yuaxiruhum li yawmin tashxasu fihi al absaar muhticiina muqnici ruusihim laa yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa li ci tege nag moo tax ñuy wax ni wa andiri nnaasa yowma yatihim alcadaabu fa yaquul rabbana axirna ila ajalin xarib nujib daawatak wa nattabica rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal nee na ñu ñi nga xam ne yàlla nag su na leen ñu jox leen digal ñuy wax nañuy wax nit ñi lay ñëw ëllëg te mën naa bañ a mel na gënal nit yàlla ñu ci yàlla musal te bañ di leen wax rek lañuy bëgg a dégg tamit neex ci seeni nopp kese ndax bis dina ñëw boo xam ne bii nit dana taxaw ak yàlla ne ko axir rabbana axirna ila ajalin xarib yàlla tey nga ñëw may fee ginnaaw suba mel ni dongo boo xam ne siñ daaraam da ko kaay tari te makkalut lu muy mujj def pexe fëx daw dem ca tóokër ba wala ca garab sàngam fas fa yéene jàng ba mokkal foofu nag amut daw jëm fenn yàlla te nga ñoo may tuuti nu jib daawataka wa nattabi rusula loolu weesu na amatu fa njariñ peese rek moo fa sës te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu rañaanee gis na kéemaan yu bari waaye bokk na ca koo xam ne day xasanu rek ba yaram muy nàcc léeg-léeg mu ne tëppit ab cër sax sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne waa jibril kii ku mu doon wala ñii ñu mu doon mu ne ko ñii de mooy ña daan laaj nit ñi bañ jox leen ñu buñ leen yégalee bañ yéeg ci kaw garab gi toñ leen bañ yéeg au lieu kon léeg-léeg ñu dagg ab doom seex léeg-léeg ñu dagg ñaari doom waddal waaye ñu fas yéene doom bu ñor ñu wadd ñu ñu ñu dagg seex mu ne léegi nag daa amatul lu mu lekk daa tàmm lekk tàmm lekk ba amatul lu mu lekk léegi yaramam bi rek moo fi nekk buy xasan di xasan di xasan ba amut mënut a xasan mu dagg ko te pit lekk ko te amut fu aw yaram moom lu ci jóge nit dutu ko am rawatina àllaxira moo tax sëriñ bi ne ba ma xamee loolu moom ci laa fab sama mbir yépp wér ko ci suñu borom rek lu ma mën di def itam yaari bay di laay jiital bu sottee du ma ne maa ko sottal damaa bari pexe déedéet yàlla moo ci jàpp mu sotti ku mu yoree lit saa bu la gisee dana la nga baal ma de dama ko jékkoogul waaye insha allahu danaa la ko delloo te bu koy am fa saa sa de la ko delloo waaye am na baat bu nit ñi lakk naan diw day laare nit ñi laari ci anglais baaxut dañoo defee ne mooy nax rek laari bokkut ak naax laari ci anglais mooy fen diw day leere leere nit ñi nag mooy diw da leen di fen yàlla nañu yàlla musal ci fen fen sëriñ bu mag bind na ci ab téeréem ne ku ko def yàlla da koy def jëmm ju ponkale muy rëg-rëg yi ba àgg aras rëg-rëg ja tiital jaaxal ña fa nekkoon ñu ne kooku mu mu ne maay fenu diw de diw dee ma fen ñu ne waaw diw nu mu toll ba mën a fen fen wu toll nii ku ne ne yàlla mu yàlla musal ci diw te foofa du ku nekk fay nekk lu si dar waxoon ne aras moom nit mënu faa yàgg ndax amul lekk amul naan amul wanag te ku fa dem ba ku fa dem it bañ xam ne yaa ngi fay dem it dañ lay nekk fii ba nga ñëw rek boo ñëwee soo waxee loo wax ñu teg ca baat bu dul lam war na nga war a wax kon fen noonu la toll sëñ bu mag bi ne su boobaa dañ koy tàmbalee bindal ci ay ñaawteef yuy tax benn bu ci nekk mën naa tax a dem nit sawara benn ñaawteef bu ndaw rek day yóbbu nit sawara nee na ñaawteef bu nekk day toll ni jabalu uxud jabalu uxud ku xam madina mën a war a boo taxawee ci madina jëm bat gànnaar mbedd mu mag moo jaar da nga seen jabalu uxud mu ne bis bi sax ñu bindal ko juróom-ñaar fukk ci ñaawteef yi toll na jabalu uxud yal nañu ci Yàlla musal loolu benn la ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ab jullit su pastéefam naree yàqu dëgg dëgg dëgg xool ko ci jatt yi su waxtaanee ak yow yaa ko jàpp waaye moom noppi na ca su la jigée danaa la defal nangam bay ba nga wuti ko feneen waaye dootoo ko gis da ko waroon a wax rek wax na ko soo ko wóoloo ba dénk ko sa yëf moom waxaale wuñ ko moo luñ ko may lay yemale saa su nañu fàttaliku koo xam ne daa tukki woon Côte d'Ivoire nee nañ bu yàgg ay années 60 boobu yónnee xaalis melut nii mu mel mu toog ba yàgg jamono jàpp ko rek mu ne daa bëgg a dem Sénégal ñépp jox ko ku ne jox ko xaalis am ci ku am ku ko jox 900000 francs 900000 ay années 60 mën na lu bari mu takk walisam dagg bii Air Afrique am am ku ne man de xaw ma fu may gisee ku mu yóbbante Sénégal sama xaalis sii am ku ne ko diw day dem mu ne ko diw du ma ko jox sama alal xanaa kooku génne nañ ko ci daayira bu jullit yi am fu ñu ko dugal wóolootuñ ko ka ko joxoon 900000 ne ko sëñ bi dama la joxoon laa bëgg nga delloo ma ko ndax dama cee am asité su ma ja su ma bett mu ne ko loolu day 900000 yi mu ne ko maa ko moom dama am lu ma ci yittewoo lu lu jàmp rek mënut a dem Sénégal mu ne ko diw yaa mën a tas yaakaar 900000 yi nga ma yóbbante ba ma ma wa- waajal damay waajal lépp programme sama programme bépp nga nar koo jël nii rek kooku lan la naroon ci 900000 xam na ko te wax ko loolu mooy wor piir yàlla na nu ci yàlla musal xadaara nag bi nga xam ne moom la waa Occident yoroon fi ne daa mel ne bëgg a tàggoo ndax loo xam ne soo waxee ki nga koy waxal mën na ko bañ a jàpp soo ko diggee jëru mu di ko gëm te boo ko wóoloo mën na laa war loolu moom jullit dañu faa war a jege ñoom te moo ne wutaloon nañu ko ay nattukaay am na wutaloon istiraakiya am na libéralia am na rasmaliya ak ilmaniya waaye yooyu yëpp bañut lool bañut ñett yooyu yàlla na ci yàlla musal ñii ñëw ci kanam yàlla na yàlla musal ci loolu ñoom ndax ñëpp a am ñoom yaakaar bari na fu ñu dem foo xam ne dañu naan leen majlis bu bees lañ bëgg bu bokkut ak ba fi nekkoon yàlla na ko yàlla wutaleeg ya fi nekkoon ba bu ñu fa wate mukk luy dummoo yónte ak lu suñu borom àtte woon ba noppi lañ fi jële woon it te suñu borom àtte woon ko ba noppi it yàlla na leen yàlla xéer bañ delloo si wat ko su booboo yàlla dana leen fay danañ musal nit ñi danañu leen aar yàlla nañu yàlla musal ci seytaane ki pexeem te bàyyi ñu fi ñun ñëpp bañ fekkewaat yeneen yu bari yu mel ni yii te yii di ñëw wuteeg ya fi jëkk na nekk yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin TQG Touba Quincaillerie Générale lëkkaloo ak Colorado bi njëkk ci wàllu peinture ca Maroc teggi na njàqare ci réew mi lépp luy taaral seen dëkkuwaay ci biir ak ci biti TQG andi na leen la ci gën di Colorado amiral seen peinture à eau biir ak biti weex tal li ca dàq nag mooy mën ngeen ko raxas yow mii nag bëgg am salon bu yànj detaaru lool kaay ma jox la secret bi jaratul wàlli yaan fenn TQG andi na leen ay gaam yu mucc ayib Touareg Stylia Cecilia Ambra mën ngeen ci am itam couleur bu leen neex yow mi am dal buy senn sonal la lool ba xamatuloo fu jëm bés ni ki tey Colorado andil na la Colorflex di peinture étanchéité woyof toll te ndox du ko jaar fenn ñi nga xam ne nag seen mur day xolleeku ak di ruus ndax xorom si pëndëx Ambiflex mooy garab gi li ci gën a yéeme nag te TQG baaxee leen ko mooy seen machine bi ñuy duppee Magic Color couleur boo leen bëgg ci peinture te saa sa mu defal leen ko ci simili yu néew Colorado daal ci dëgg-dëgg tànnal sa bu la neex la